ñu ñëw ci diggante Bombardier ak Balla Gaye nekk na komba boo xamante ne revanche la Balla ñëw pour jël revanche Bombardier ñëw pour confirmer ba combat boobu noo gisee. waa combat la boo nga xam ne tamit buñ ciy wax bu ñuy wax buñ jëlee suñ buum sëriñ tekku ne leen waxtaan ci ngir suñu xam-xamu bopp nii. Mm-hmm. combat la boo nga xamante ni tamit combat la. Mm. waaw. naa neex mën naa naqari ci kaw mu neex Balla Gaye hmm. waaw. bu Balla bëggee mu neex mu neex bëggee mu naqari mu naqari. mu naqari. waaw mu combat moom moom moom moo parce que moo moo jël si revanche. Hmm. waaw. door mu daanu mën nañ ko séntu ci komba boobu. noo wax dëgg yàlla gisaguma ci dara loo nga xamante ni mën naa ko cee wax te am na yoo nga xam ni. Hmm. sax wax dëgg yàlla même buñ ko gisatee. Hmm. personnellement duñ ko wax. Hmm, bàyyi nga léegi waaw ndax bàyyi nañu wax ci làmb daal ci côté boobu mel noonu ndaxte xam nga ay nit dañ lay bëgg nekk ba bitim réew. Hmm. xam nga euh, kenn mën ta wax lépp daal nga ngay toog di wax yoo nga xamante ni ñoom boo ko waxee ni nga koy waxee mën na leen man na dañ lay sop sopp boo nga xam ne daal te xam nga nit amul lu dul. genn waa ñu ko sopp. dëgg